Cambérène bi nga xamante ni jéego gu doy war moom moo fi am ci am ku nu faat ci anam yoo xamante ni ba tey mënaguñ ci am lu leer voilà donc euh... commentaire nu voilà donc sawaay nee na euh, mbokki kon yéen a ngi noonu en direct sur Sénégo loga gars il essaie de donner des directives par rapport ak filmage bi mais li mu xamul mooy filmer wuñu leen on ne manque pas assez de professionnalisme pour filmer n'importe quoi donc je vous le rappelais tantôt ci introduction bi nous sommes présentement aux unités 15 euh, fii ci euh, VDN 3 bi nga xamante ni am waaju fi faatu ci anam yoo xamante ni euh, xëy na dinañ ci dikkaat bu nu amee ay éclairage waaye pour le moment police scientifique bi mu may doog a yegg si noonu pour essayer d'établir euh, des détails concernant maanaam tey jii ni euh, faatu bi nga xamante ni waa ji faatu na fi voilà pour le moment nii. voilà pour le moment police scientifique bi ñoom ñooy doog a yegg si noonu peut-être après on va essayer d'y revenir en détail. li fi am kéemaan la condition yi mu deewee lan moo xew amaguñ ci ay information ne serait-ce que fi mu ne nii ñu ngi sur les lieux en attendant peut-être après nu am euh, des éclairages concernant sur la mort de la personne bi nga xamante ni moom lañ fi annoncé quoi. non non amu ci benn information mënuma leen ci wax dara quoi sincèrement je suis désolé. Euh, Abdoulaye ka ñu jéem ma avancé ku baax euh, man dama xaw a tardé tuuti boo ma mënee indil. kenn man Cheikh Siré laa tudd. waaw euh, Cheikh ndax mën nga dikkaat ci li jaaxal nit ñi daal te bëgg xam lan moo xew réellement. bon man depuis démb laa ko yëg. démb ci suba lañ ñi ma booy bi ñu koy woo téléphone jotuñu ko. après après bi ma ñëwee waxtaan sama jabar parce que moom samay jabar ay ay mbokk lañ ko sama jabar magam la quoi. seen jabar ay waaw parce que yaayam ak sama yaayu jabar ñoo bokk ndey ak baay après bi ñu ma ko waxee nag ma ne waaw amoon naa nag xel mu rafet daal ba dem ci guddi rek may naan danañ ko libere xam naa ne gars yi dañoo xaw a tiit rek xam naa bëccëg bi duñ ko mën a libéré mais xëy na guddi gi après bi ñu xëyee suba nag ci lañ am notice bi ñu notice boo xam ne. naka ngeen jotee xibaar. bon xibaar bi man dama doon ñëw ànd ak sama soxna pour dem kër ga quoi pour assister famille bi après ci yoon bi lañ ma ko wax quoi. waaw moom daal mën nga ñu fàttali tur ak ci lu mu doon yëngu. moom dong gee la tudd quoi. il paraît que bijoutier la woon. waaw bijoutier la woon waaw daan voyager quoi dem ko ñëw. Euh, lan nga mujj jàpp ci moom bi ngeen di mujj déggante. bi ñuy mujjee gisante kay ma maag sama waa ji ñoo àndoon <laughs> waaw Cheikh waaw xanaa waaw non amul non non c'est problème non c'est ngi ñëw waaw bi ñu mujjee gisante amee pas deux semaines la ñu demoon benn euh, dëj bu amoon Diourbel. yéen da ngeen ko xamaloon ay problème ci ñu mu sëkkaloon ay détails. nitu diina la du nuyu sax jigéen ku am taalube barki alxuraanul karim ku am taalube laa lay wax nii. njortu leen dara ci lu war a mën a waral. non non waru ko mën a am dañ ko jaay doole fat li jaay doole waaw dañ ko jaay doole fat parce que xale bu ndaw la. xaw ma ko parce que xale la du mag su doon mag ponkal. day ñafe ak ñoom ah man man loolu la parce que xam nga suñu. dafa xam ni dafa am pour man wooy pour man amul ñu problème parce que xam naa dalee na xam moo tax ñu kiil ko. yéen yéen a ma gën a xam yéen journaliste ñi nga xamante ni ñoom ñooy faral di yëngu ci eh, situation yi bu amee ñoom ñëpp eh, teew nañ fi fi mu ne nii nag eh, les écoles ku ci nekk ci sa boor image yi Ablaye sekk di leen woon noonu ku ci nekk yaa ngi joxe sa xalaat ku ci nekk yaa ngi joxe sa gis-gis ki doon wax léegi nag moom jabaram ak kii nga xamante ni moom moom moo faatu fi seen ñaar yaay ñoom ñoo bokk ndey ak baay mu doon indi ay leeral ci li mu mën a témoigner ci moom ak ci li nga xamante ni moom la xam ci moom d'avancer pour jéem a xool si toutefois on peut avoir d'autres informations yéen ñu ñuy suivre mbokk yéen a ngi en direct oto yële ngeen di oto bi ngeen di gis ne le au fond euh, oto famille bi la. auto famille ki nga xamante ni moom moo euh, décedé nga xamante ni nii euh, ñoom itamit ñu ngi noonu di am ay commentaires yu ñuy def xam naa du ñàkk tuuti dinañ jéem a avancer jege leen ngir am euh, d'autres information complementaire par rapport à la situation. donc situation bi mooy li nga xamante ni moom mooy li fi am oto bii ngeen di seen nii moom mooy oto DK 58 40 AY bi moom mooy oto bi nga xamante ni ca la ndongo nekkoon. ki faatu nag ndongo la euh, nekkoon bijoutier ci son en état ci loolu la doon yëngu oto bii nga xamante ni moom ngeen di seen noonu Abdoulaye ñu jéem a moom mooy oto bi nga xamante ni ci la euh, ndongo nekkoon ndongo mi euh, décédé ki doon def témoignage léegi moom li muy fàttali ci ndongo mooy que ni nekkoon na nit ku sell ku ñàkk problème koo xamante ni sax daanaka du nuyu jigéen ko doole daal koy faat mbokk yi on va essayer d'avancer essayer d'avoir d'autres réactions par rapport à situation qui vaille fii nga xamante ni moom mooy jëm euh, Cambérène VDN 3 bi euh, parcelle unité quinze voilà oto baa ngi noonu oto bii nga xamante ni euh, moom ci la nekkoon Abdoulaye boo mu mënee jëlalaat oto yi élément service d'hygiène yi police scientifique bi rawatina sapeur pompier fii lañ nekkoon sànq di dajale des éléments par rapport à la situation wala donc on va essayer d'avancer on va essayer d'avancer si toutefois on peut avoir des réactions ci euh, commissaire bi ndax mun nañu indil quelques détails concernant la euh, situation voilà. C'est important. Voilà, donc euh, on va essayer d'avancer. on va essayer d'avancer voilà le chef de la section des accidents moom nee na ce serait plus judicieux ñu dem fële ko bi ñii def la ñuy def ban ko euh, faatee ba noppi ci lañ ko dugaloon voilà donc euh, ngeen am ko noonu en nimage fii lañ ko dugaloon ñi def la ñuy def ban ko defee ba noppi. Euh, fii nag maanaam mbooloo mi ñu ci bëri am na ci ay mbokk am ci ay ñoo xam te dañ ko xam daan jëflante ak ñoom. daan Ablaye, on revenir en détail sur euh, les tenants et les aboutissants euh, euh, de la mort du jeune Ndongo qui a été tué ici dans des conditions jusque-là inconnues. voilà saako bi ngeen di seen ne la waxoon naa leen ko sànq moom mooy saako biñ ko dugaloon biñ ko faate oto bii ngeen di seen nii moom mooy oto bi nga xamante ni moom la doon a dawal. seede yi ñu jot amagum ci moom sànq li waa ji wax mooy que ni moom sell lañ xamoon ci moom baax leen xamoon ci moom vraiment. voilà te itam moom c'était un bijoutier à son état jaaykatu or la woon voilà moo di situation boo xamante ni vraiment euh, daw na yaram daw na yaram. maire bi daf ko xam wala mbokkam la Abdoulaye duñ jël. voilà. def ko ñu ngi koy def. man famille waaye nag. papa ak hmm? titre de témoignage. ok donc euh, c'est des membres de la famille euh, dans la consternation euh, vraiment ils sont désolés de la situation ndax li fi xew métti na leen mënaguñu wax. ah yaay booy ngi noonu <laughs> dafay ragal wax. moom de ragal a wax mais c'était juste ay témoignage la woon. waaw li ngeen ma dëpp daa bari damaa ragal ay wax. waxal quatre trois jours ci tey wala quatre jours maa ngi fi romb oto bi trois jours ci tey man maa ngi dëkk ni ci ginnaaw. Ah, man maa ngi koy romb fi mu taxaw mais pour man oto bi dafa paan ma ko wax ma informé ne ma oto bi. taxaw fi doon gis oto yi ñetti fan yi yëpp xamoo woon wàcc ak sama maa ngi koy romb mu taxaw mais jaaxalul la yow. non franchement li ah mais grand lii kay comme jaaxalul amul. grand lii lii lii lii. est-ce seen zone yi dafay faral di am ay scène wala yu mel nii. daana fi am mais presque depuis commissariat bi installé wu ba léegi franchement macha allah presque ay affaire de sàcc yi nga daan dégg sax déggatoo ko fi depuis commissariat bi ñëw ba léegi vraiment sécurité am na fi. mais xam nga lii moom xam nga koo ko def da lay wóor ni la bon lu mu préparé la parce que nit mënoo ko fekk ci otoom ray ko ci biir otoom kon am na lu xew.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 nooy def am na yoo xamante ne man naa ñàkk vraiment sëñ ngeen baal. am message boo bëgg wax autorité autorité muñ gën ñoo dimbali ci sécurité. gën ñoo dimbali rek ci sécurité dong la ñuy ñaan autorité yi amuñu leneen lu ñu leen di ñaan. vraiment loolu rek lañ leen di ñaan. sëñ bi Aziz Diagne. Aziz Diagne. waaw je suis journaliste information bi ñu mën a am mooy bi ñëpp am rek mooy que. Mhm. bon am na ku ñu boom xamuñ ndax nañ ko boomee ak kañ lañ ko boom bu ñu bàyyi ci biir oto parce que ñun dañuy ñëw.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 mais di gën a waxaat comme li ma wax sànq rek Sénégal dañoo war a changer ni ñuy doxalee. changé parce que yàgg na fi affaire de rey rey nii ñaari at ñett wala. boo am bi ngeen fi gisee oto bi jéem leen ko jege jéem a xam lan la. waaw parce que jéem ñu ko wax parce que am na oto yu bëri yoo xamante si nii dañ fiy gaare ñu jàpp ne oto bu pan la dafa rek ñun loolu lañ ko fogoon parce que oto bi depuis dimanche bi ñu ko gisee ba léegi ñun loolu lañ jàppoon quoi. mais xëy na ay mbokam ñoo doon ñoo ko doon wër ba yem si xamee oto bi daal di. ngeen kañ ngeen yëg nii maanaam nit a faatu ci bi. léegi léegi tey tey lañ ko yëg tey lañ ko yëg parce que depuis dimanche la lañ ko gis oto bi mais xamuñ woon nit ku fa ni dafi daan am ci Cambérène fi non non li c'est la première fois ñu ko fi doog gis parce que waa Cambérène ñoom xamuñu ay rey nit affaire yooyu ñun jaamu yàlla lañu xam ak liggéey door waar mais nag Sénégal di wax ak président de la République di Sénégal essayé moo yor Sénégal mooy voté loi yi affaire ak waa assemblée parce que nañ xam ne lu yàlla suñu borom moo ñu gën a xam suñu bopp moo ñu gën a bëgg moo ëpp yërmande ñëpp kon yàlla bu ñu wàccee fii si àdduna ñu pour ñu jaamu ko du ñu teg loo xamante si nii dañuy lu finnaal la moom bu indee rey ku rey ñi rey la kon moom xam moo ñu. yéen wóor na leen ni dañ ko rey. dañ ko rey yow ku nit nag yàlla suñu borom dina rey nit dugal ko ci saako yàlla dina def loolu. yàlla du ko def nit a koy def ak moromu nitam. nga am benn message go bëgg jàllale. waa benn message mooy jàllale. lan jàllale mu état bi laa ko jàllale mooy ku rey dañ laa war a rey woo presse bi yëpp. waaw tout la presse ñu ñëw ñu ne kii dafa rey nit dañ ko war a àtte rey ko wane lépp ñëpp di si teg seen bët mais ñaaw na trop rey dafa yomb barki démb ki ñu ray fii nii si 500 500 500 téeméer. sa fan la xewe fii nii indi 25. lan moo xewoon. ay affaire de raxas oto yooyu noonu benn waaye jugee fële rek jam ko paaka imagine lu yooyu dafa yomb dafa yomb dañoo war a def loolu ku rey ñi rey la yàllaa ñu gën a bëgg sa waay yàllaa ñu a bëgg suñu bopp nañ def loolu. ah président ñu ngi lay ñaan ngir yàlla appliquer loolu wala koo xamante si nii bu fi Macky Sall jugee yaay toog appliquer loolu ngir yàlla ñun jeunesse bi dañoo sonn ci lii. chaque jour nga dégg ay ray jaajëf nee nañ daanaka ay ñetti fan dugg ci ñeenti fan oto baa ngi fi nit ña ngi koy romb waaye xamuñu woon li ci nekk. Euh, ce matin ni ko Abdou Aziz sunu mbokk taskat xibaar boobu leerale sëru waa ji nag te moo newoon ci taxi romb oto bi ñaaw njort ne xaaral mu wàcc bi mu wàccee nag xool mu gis ni frère am la euh, gars yi dañ ko rey dugaloon ko ci euh, saako. yeneen xibaar yiñ ci war a am xëy na ñu ngi ci lu ci mun tam dinañ ci dikkaat en détail mu nekkoon maanaam deewu ndongo un jeune bijoutier à son état ci information yi ñu am mu mel ni. Euh, am na daal ay samba boy yu ko song def ko jëf ju ñaaw jo dugal ko ci saaku euh, askan wi nag ñoom ñi jël kàddu ñëpp am nañu leen nakkari métlu nañ ko nakkarlu nañ ko voilà donc euh, dinañ ci dikkaat incha allahu rabbi dinañ ci dikkaat incha allahu rabbi pour beaucoup plus de détails mbokk yi nekkoon ak Sénégo ànd kook Yaa Moussa ak Abdoulaye Seck nekkoon ci caméra bi indi loon ay xibaar par rapport ak li nga xamante ni moom moo am voilà donc ski baa ngi noonu di ubbi oto bi. Euh, kooku kooku moom mooy chef section des accidents comme euh, agent policier boobu ngeen di seen sànq bi ma ko ay jegee ngir am ay xibaar à leur niveau ñoom yan information lañ am voilà ñoom ñooy jéema xoolaat oto bi noonu euh, dinañ ci dikkaat incha allah fi lekk maanaam mbir yi di woy rek ci ay rebondissement yu bees yéen ñu ci am di fàttali ni. voilà donc di fàttali ni ñu ngoon fii ci euh, yoon wi jëm Cambérène ci VDN 3 bi euh, ca boori unité euh, quinze fii la jëf ji amee ndaw ju ñu faat ci anam yoo xamante ni xibaar yi ci am mooy réaction yooyu ngeen gis faat nañ ko dugal ko ci saako di leen jaajëfal jaajëf.